bi nga xamante ni may nañu ñun ak ñi ñu àndal te yéen ñu nekk ci press bi yéen ñi nekk ci presse bi euh, demu leen desu leen gannaaw ñu jàpp ne ak jàngoro ji law ci dëkk bi mbas mi toll na foo xam ne war nañu taxaw def seet seetal euh, seet li nga xam ni dégg nañ ko ci centre national de transfusion sanguine ci deret bi commencé ñàkk ci yenn structure de santé yi ci ndakaaru ak réew mi yëpp nag jëm ci mbas mi jëm ci ñi accidenté ci booru tali bi jëm ci suñu soxna yi nga xamante ni ñu ngi ñàkk deret léeg-léeg bu ñuy joxee bu ñuy bu ñuy bu ñuy bu ñuy mucc euh, deret manqué leen ndax hémorragie bi ba mar d'Italie ñu jàpp ne war nañu mën dajale suñu ay gune pour ñu may ay deret Euh, ci suba ba léegi nag sant suñu borom euh, mbooloo mi macha allah takku na muy civil di soldaar soldaar yi nag ñoom dama leen di jox mention spéciale tàmbalee ko ci seen i njiit parce que ñoom ñoo leen digal jiital leen suba teel ñu ñëw fii def fii regroupement bu am solo animation bu am solo euh, ni soldat di def rek fecc nañ fi way nañ fii wane nañu jàmbaarti waaye wax nañ leen ni koo xam ni dafa dañ ko tàggat ci joxe bakkanam pour ñun ñu mucc pour réew mi mucc dafa joxe bakkanam pour ñun ñu mën a nelaw ba yàndoor te moom du xam lu mu nekk dafay joxe bakkanam ngir buy xëy di ñibbi di xëy di liggéey du xam ndax dana dellu si ba gis njabootam ci jàmm donc ñooñu dañ leen war njukkal te bés yu mel nii bokk na ci bés yoo xam ni dañ leen war a féliciter la nga xam ni moo ci topp moy centre national de transfusion sanguine dafa alerté te yàgg di ko def ma japp né kenn ci ñun warul noppalu ndax boy xaar finalu ASC wala final de zone taxaw wala meeting wala ñun le président day ñew tel gox nga commencé mobiliser pour wane sa bop naam baax waye li lii dafa gën fexé ba jamono bo xamni ni sa réew soxla na la ci yo xamni euh, yu demee nii la té day am njëriñ nga woté nit ñi ñëw wuy si la te loolu am nañ ko bu baaxa baaxa baax baax bu ñu ko gënee mën a am nag dafa fekk ni yéen journalistes yi teel ngeen nekk ci suñu wet teel ngeen dajaloo di ñu laaj di wut ay interview naam léeg-léeg ñu ngàntal ko sax ngàntal bu garaw ma sœur waaye lépp nag itam c'est pour la bonne cause ndax waajal bi mooy laaj concentration ba nga xam ni dangay dangay da ngay focus rek ci li nga xam ni moom nga war a taxawal nga boo ci paree nag ñi nga war dajeel te bokk ñoom réew mi naam yaa leen féete mag waaye gënuñu leen bëgg réew mi bu weesoo xëy na euh, biir bu xaw a gën a kii ak ay béjaaw ak ay at yu yokk ci suñu état civil gënuñu leen bëgg réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk te bu ñu lëngoowul jàppawuñu amul lenn lu ñuy samp muy samp amul lenn lu ñuy taxawal mu taxaw donc yéen itam yéen itam gàcce ngaalaam